dali na jàmm ñoo ànd xëy yér yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gii di l'info Sud Quotidien Le Quotidien L'Observateur Libération Enquête L'As Rewmi Quotidien mbooleem yéenekaay yi ñu xëyandoo ñu xëy di ñu xibaar ñu Sénégal jamono ji fitna ji yeewoote na ci réew mi li yee fitna ci réew mi nag mooy Macky mi taxaw dàq élection yi nga xam ne jàppoon nañu ko 25 février 2024 la Macky dàq loole moo tax jamono ji bëri na ci réew mi ñoo xam ne mer na ci réew mi journal xibaar naan ñu réew mi di Sénégal fin na jàngi mel ni tulleeg màlle réew moo pëccëxoo te li tax réew mi pëccëxoo mooy Macky Sall ak kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko wax ne dafay dàq élection na ci musiba mamba kumba koo xam ne mën nañoo xam fan lay commencé waaye mënuñoo xam fan lay teere ji yéene kaay gi de l'Observateur xëy duñu xibaar naa ñu li ñu doon laam-laamee ci réew mi naan dañuy dàq élection yi waaw wala déeta loolee jamono ji leer na ndax Macky Sall moo taxaw ci RTS wax ne élection yi dàq nañu ko ba pare Macky Sall amul benn app boo xam ne joxe na ko ne moom la ñuy amal yooyu la élection yéenekaay gi nee na Macky Sall ba mu taxawee wax li muy wax ba pare la mu ca mooy ab dialogue la fas yéene woote ndax li tax mu dàq élection yi ne na mbirum guerre bi nga xam ne jamono ji moom la ñuy tudd ci conseil constitutionnel ak commission d'enquête parlementaire bi yóbbu ci assemblée nationale ak lu jëm ci double nationalité bu Rose Wardini li bokk na ci li Macky Sall wax tax mu daq élection yi yéenekaay gi de l'info nee na Macky Sall wax ji mu wax ne moo tax mu dàq élection yi loolee tuuti na loola journal bi na ma ko tuddee mooy kàddu la yoo xam ne yu léger la a wax naqasaxa nag la kay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naa ñu lu jëm ci élection présidentielle yi nga xam ne moom la ñu dëgmaloon Macky Sall annulé na ko Macky Sall annule tout la ko journal bi xëy fësale si xëtam njëkk yéen kay gi di Source A xëy duñu xibaar naan ñu élection yi ñu dàq loolee tax na jamono ji dëkk bi yëngu na dëkk bi di Sénégal mën la coow laa ngi mel ni male violence bi judd waan ci réew mi Macky dañu koo sës ci miir bi Macky communauté internationale bi ñoom tim dañoo wan ginnaaw Macky Sall maanaam ànduñu ci Abdou Latif Coulibaly mi ñu tuumaal magam lu jëm ci wàllum guerre Abdou Latif Coulibaly moomee démissionné na ndax moo nekkoon ministre secrétaire général du gouvernement magam ji ñu tuumaal moo tax ndax magi Abdou Latif Coulibaly di Cheikh Tidiane Coulibaly mi nekk ca conseil constitutionnel bokk nañu ci ñi tudd ci mbir mi mbir mi am ci journal bi de Le Quotidien yor yor ak ni Serigne Saliou Gueye bi moo xëy la fi xewoon jamonoy Abdoulaye Wade mbaadu sa lañu jëm yéenekaay gi di évidence moo xëy di ñu ko xibaar journal bi di Réveil Quotidien xëy du ñu xibaar na ñu coalition Bassirou Diomaye Faye président ñoom jamono ji lu ñu woote mooy ay manifestation ca buntu assemblée nationale tey jii projet de loi bi tey jii la ñu koy voté ca assemblée nationale ngir nag yokkal Macky Sall du toll ci juróom benn weer yéen gi de Le Quotidien xëy du ñu xibaar naan ñu bi ñoom nag nee nañu décret présidentiel boobee dinañu ko attaqué ca kanamu cour suprême député yi bokk ci coalition Yewwi Askan Wi tey jii ci altine ji ñoom tim woote nañu manifestation mobilisation ci bunt assemblée nationale ngir nag naqarlu ngir ñaawlu li am ci réew mi li am ci journal bi de l'observateur mooy lu jëm ci élection yi nga xam ne moom la ñu dàq ak jamono ji ni mu gàkkalee derub Sénégal image sub Sénégal tilim na image ndax jamono ji Sénégal la ñuy ŋawtu ŋawtee yéen kay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu opposition bi démb ñoom tim joxe woon nañu ab dig daje ca Weeden ba ngir nag amal fa siinu campagne boo xam ne ñoom ñëpp ñoo koy bokk waaye nag ñi nga xam ne ñooy takk der yi ñoo leen fa fekk ak ay grenade lacrymogène am na yoo xam ne démb teg nañu leen loxo journal bi nee ngar daajoo nañu ko maanaam coupé nañu signal ba téem nañu licence ba yéene kaay gi di source a xëy dañu xibaar nañu opposition bi ñoom nag nee nañu dinañu battre campagne ci nii wala ci naa Anta Babacar Ngom démb dañu ko teg loxo jël ko yóbbu ko gendarmerie Foire Aminata bi de nee na bàyyi nañu leen ñoom ñaar ñi démb ginnaaw bi ñu leen tegee loxo yéene kaay gi nee na professeur Daouda Ndiaye moom tim démb dañu ko malmené daal di koy fitnaal Walfadjri xëy duñu xibaar naan ñu bu ñu waxante dëgg ak dàq gi ñu dàq élection yi mën nañoo waat ne jamono ji démocratie nërmelu na ci réew mi violence yi affrontement bi am niki démb ci ndakaaru na la ko yàlla ump démb ndakaaru tàng na ba fu ko waaye natt paase na ko journal bi nee na la république à terre jamono ji li journal bi jàpp mooy république bi jamono ji dafa nërmelu pression internationale jamono ji moo tegu ci kaw Macky Sall ndax Macky ñu tey ànduñu ëllëg ci élection yi nga xam ne dañu ko dàq journal bi nee na syndicat yi ànduñu tey ànduñu ëllëg ci élection yi nga xam ne dañu koo dàq journal bi nee na église bi ànduñu tey ànduñu ñu ci élection yi nga xam ne dañu koo dàq journal bi nee na Touba ànduñu tey ànduñu ëllëg ci élection yi nga xam ne moom la ñu dàq journal bi ñu xëy fekk fa monseigneur Benjamin Ndiaye nee na am na lu ko naqari am na lu ko bett ci mbir mi te nag jamono ji li mi sàkku mooy constitution bi maanaam ñu daal di koy respecté yéen kay gi de libération xëy dañu Sall nee na doxalinu Macky Sall loolee munuñu ko jàppee lu dul haute trahison Mary Teuw na ko maa la ko wax man tim dama koy dëggal ndax doxalinu Macky Sall mën nañu ko jàppee haute trahison war la goo xam ne fu ko waaye natt ko ay yoo xam ne maanaam jàppante yi meloon na fa tulleeg màlle laas yéene kaay nee na démb ndakaaru tàng na waaye tamit Thiès démb gars yi yëngu nañu yéene kaay gi di laas xëy dañu xibaar naan ñu muy CEDEAO di union européenne di waa États-Unis di waa moo ñu organiser ay élection ni mu gën a gaawee ci réew mi di Sénégal journal bi di bés bi nee na Macky Sall woote na ab dialogue waaye kan lay dialogué la ndax bëri na ñoo xam ne taxaw nañu nee nañu wuy jiwuñu dialogue tey wuy jiwuñu dialogue lëkk li ñu bëgg mooy élection yi ñu amal ko ci àpp bi nga xam ne moom la ñu ko jàpp yéen kay gi ñu xëy fekk fa professeur Abdoulaye Dieye nee na ji li ñu sàkku Macky Sall wax ñu ko mooy 2 avril bu weesoo kan mooy nekk njiitu réew mi ndax Macky Sall ak ayam 2 avril lay yam yéen kay gi di express xëy duñu xibaar naan ñu lu jëm ci élection yi nga xam ne moom la ñu dàq Macky Sall amul benn concertation boo xam ne def na ko ci ak opposition bi opposition opposition bi jamono ji ñoo ngi nee na ñu la xew ci réew mi loolee ab coup d'état la yéen a ñu xëy fa Guy Marius Sagna mer na ba maara di tale moom Guy Marius Sagna nee na weer ak fukki weer ak ñaar ñoo ci yama Macky Sall amul lenn lu ñuy négocier ak moom li mu bëgg mu am ci réew mi loole du am ci réew mi li am ci journal bi de la Regard mooy lu jëm ci wàllum démocratie bi nga xam ne journal bi nee na dañu ko confisqué dañu ko fuqarti Dakar Presse xëy du ñuy xibaar naa ñu dàq gi ñu dàq élection yi li mu mën a jur ci réew mi maara di tale musiba ma ba kumba rek la mën a indi ci réew mi ndax lii raam sañ ak bala jëmate bu fa amee kër du baax yéen kaay gii di l'indépendant xëy dañu xibaar naan ñu ministre bi ñu dénk wàllum force armée di maître Oumar Youm ak ministre de l'intérieur di maître Sidiki Kaba démb demoon nañu ci Touba yéen kaay gi di Le Quotidien yor yor nee demoon na ci Touba waaye nag waa Touba ñoom ànduñu ci yi nga xam ne moom la ñu dàq yéen kaay gi di Vox Populi nee ci élection yi nga xam ne moom la ñu dàq waaye du église bi rek ndax imam yi ñoom tim ànduñu benn yoon ci élection yi nga xam ne dañu ko ci yéen a ko freiné ndax Amadou Ba bëri ñoo xam ne bëgguñu ko ci biir APR bëri na ñoo xam ne bëgguñu ko ci biir Benno Bokk Yaakaar waaye nag Amadou Ba combattre ou périr yéen a kaay gi xëy duñu xibaar naan élection présidentielle 2024 yi nga xam ne dàq nañu ko Macky nag jamono ji jël na aw virage boo xam ne virage bu dangereux la te li a andi ci réew bëri na waaye nag li gënu doy waar ci mbir mi mooy Macky bi mu dàq élection yi argument yi nga xam ne moom la teg maanaam di jéem a layal dàq gi mu dàq élection yi journal bi nee wax jooje wax jooje waxi naq la wax la joo xam ne amul bopp amul kenn maanaam Macky Sall ci kenn te nag lu jëm ci wàllum yokku mandat bi loolee constitution bi dañ koy tere bu ñu sukkandikoo ci article 103 te nag lu jëm ci Macky mi nga xam ne nee day dàq élection yi ba pare waxul kañ la koy amal loolee mën nañu ko ko yéene jamono ji mi nekk woon a président maanaam benn bëccëg sax munu ko yokk ci mandaam 24 heures la Macky Sall waxoon ne amul benn président boo xam ne mën na ko yokk ci am mandaam te nag lu jëm ci wàllum ay élection kenn munu ko repousser kenn munu ko dàq loole la Macky Sall waxoon te Macky Sall dafa waxoon ni jamono jooje ñi nga xam ne ñooy xalaat dàq élection yi ñooñu dañuy gént te seen gént googu nañu ko bàyyee ndax nag bu ñu première fois ñuy dàq ay élection présidentielle ci Sénégal Macky Sall moo ko fi njëkk a def moo tax askan wi jamono ji bëri na ñoo xam ne mer nañu ba maara détaali journal bi nee na lu jëm ci wàllum proposition de loi bi ñi nga xam ne ñuy waa PDS nag dàq élection yi juróom benn weer la ñu sàkko ñi nga xam ne ñuy waa Benno Bokk Yaakaar juróom benn weer yi waa PDS wax waa Benno Bokk Yaakaar dañ see bëgg a yokk ñoom tim juróom benn weer maanaam ñu syndicat Sénégal ñoom jamono ji ñoom tim génn nañu ab communiqué nee nañu ñoo ngi solidarité ak askan wi waaye tamit liggéeykat yi nekk a xam ne mooy internet bi ñoom ne nañu loolee duñu ko nangooti tey duñu ko nangooti ëllëg te ñoo ngi ci central syndicat am sañ-sañ am nga xam ne mooy internet loolee seeni droit la yéene kaay gi di 24 heures xëy yi nekk ci kuréel gi ëmb ñi nekk ci wàllu wér gi yaram gi di SAMES grèce maanaam ñoo dagg ñaari fan yoo xam ne ñaari fani gerew la li ko waral dafa am seen benn membre boo xam ne dañu ko agressé sa diiwaanu Saint-Louis